tey nak luñu fi dajalé won moy dañ doon terminer première session de formation bu nga xamante dafa doon porter ci esprit entrepreneurial esprit entrepreneurial dafa bokk formation bobu dafa bokk ci programme bu nga xamante c'est beaucoup plus global buy duré at nga xamante neuf sessions de formation la neuf sessions de formation lépp lu nga xamante rek dafa intéresser vie entreprise bi vie entrepreneur bi dinañ ko jang jangat ko xoolaat ko seetluwaat ko Té dañu adopté une approche très pratique pour mun ko def programme est toujours une ay session ay séance de coaching individuel Nous nga xamante ne dañ ko jagleel tamit entrepreneur yu nga euh, si euh, nous sommes ñu am parce que nous avons fait le programme nous avons une satisfaction euh, formé tamit une satisfaction parce que 16 heures nous avons arrêté Mais ba 18 heures nous avons sax génn salle te loolu rek nous démontrer te nekkuñu ay xale day démontrer rek que a euh, ñu doon def ñor na leen te gis nañ njëriñam Alors, alors formation bi concerné 32 entrepreneurs muy sont nga porteurs de projet Ils ont créé une entreprise depuis bu parce que le programme PAC entrepreneuriat 2019 est un opérateur économique gunge porteur de projet yi projets, entrepreneur pour que nous puissions réaliser seeni ambitions. comme ça ñun chambre de commerce ak suñuy partenaires nous lu nga xamante nous pour que nous puissions mettre en place leur entreprise développer notre entreprise La formation bi mu sur l'esprit entrepreneurial esprit entrepreneurial session de formation il faut dafa 9 neuf sessions de formation que nga un programme bi esprit entrepreneurial amener dynamique organisationnelle amener comptabilité simplifiée et calcul des coûts amener fiscalité des entreprises amener marketing amener gestion de stock amener leadership et coaching donc formation yoyep dafa intéressé directement sur les fonctions de l'entreprise téwal ci ben entreprise bi est wax espace type mu entreprise qui xamné dafa ñëw ci innovation fi ci kaolax def ay actes yu bari yoo xamné ñun ñu ngi yëngu ci poulet de chair ak lépp jëm ci wàllu transformation tamit ci poulet de chair bi mais ci loolu dama cee jàngee dañ ma indi ci benn formation bu ñuy wax pacte entrepreneuriat fii ci Kaolack chambre de commerce ko doon ñu war a def benn formation boo xam ne six mois lañ koy def six mois yoonu ñu ngi ci war a génne ci neuf filières yoo xam ne benn bu nekk bokkut ak sa morom kon tey am na kontantement ginnaaw bi ma paree sama benn filière. fii ci chambre de commerce déjà man élève la def naa ñaar yoon baccalauréat ma xam ne nekku ne réussir ndaw nekku ne ci jàng kese la war nekk nit bu làmbee fenn mu të dafay jaarat benn chemin am na ñenn ñenn sama morom yoo xam ne maanaam tey ji gisuñu leen lu du tukki seen patrimoine papa la ñuy jël seen patrimoine yaay wala loo xam ne seen papa moo leen ko fi bàyyeel lépp rek pour gis tukki ku mel ni man mii nit proposé na ma trois millions pour Canada te bi ma ñëwee ci pacte entrepreneuriat bi jàngal nañ ma loo xam ne maanaam tey jii mën naa di gérer sama entreprise à tout moment su fekkee nga jaar ci bépp condition boo xam ne maanaam dañ la ko tegal mais maanaam nga am registre de commerce am linéa am lépp loo xam ne maanaam nit ki da koy am ñaata ndaw ñooy génn dem di tukki ñu la ñu nax dèjà nga dugal ci benn lobby boo xam ne ñoo ne da nga leen yóbbu am nga problème mu kayit. am nga problème nangam di la nax di la arnaque di la arnaque ba nii te tey jii boo nekkee ci li nga xam ne mooy commerce ak nga jaar fi nga war a jaar am carte de commerce am registre de commerce am linéa yëpp mën nga yow sa biir entreprise ngay yóbbu doomu aadama bitim réew dem ak dikk te yow tamit da nga dem ak dikk te booba léegi yaa ngi bëgg a tukki mu tëla képp ku mel ni jeune comme man dynamique ñëw leen ngeen jëm a teg seen tànk ci chambre de pour découvrir lépp looy secret ci liggéey maa ngi lay nuyu wasalaam.